asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu mbokki jullit yi nuyu jullit di nuyoob lislaam di ñaan borom bi subhaanahu tabaraka wa taala suñuy kàddu fekk leen ci jàmm ak yërmande yàlla ak ak njëggalam mu mel ni dañuy dellusiwaat sunu jotaay ak yóbbulum ndaw ñi muy jotaayu xam-xam waaye di jotaayu fàttalikonte ci sunu diine lislaam ñu doon jàngale nag téere bii ñuy wax al jawharun nafis ñu tolloon ci sunu bind bi mujj doon jàngale sangu farata ci boppam ak ay ak sangu farata kan ak kan la war kon sunu bind bi tey dañuy tàmbali ci lan mooy farataay sangu farata ak ñaata la moo tax mu ne faslun lii ab dog la fii faraidihi ci ay farataam moom sang farata amal faraidu ndaal faratay amal faraidu ndaal farataya fa niyatun mooy yéene la daa suruuxihi fa tàmbaliga fawrun gaaw wa dal kun xadd badaa gog feeñ summa amumun topp matale li jamiil jasadi mboolem yaram wax bi mutlaxil maa yi ci ndox mu mutlax wa imraarul yadi ak rombale loxo ya kon mu mel ni sangu farata ñeenti farata la am bi ca njëkk mooy yéene mooy buy tàmbali mu yéene ñaareel ba mooy na fexe ba yaram wépp tooy ci am ndox ñetteel ba na fexe ba fépp fu tooy ci am ndox na ànd ak bomb ci loxoom ñeenteel ba mooy sësale sunna ya sësale farata ya maanaam lu mu def xool la ca war topp mu def ko kon ñeent yooyu mooy ñeenti sangu farata loolu mooy ay ñeenti ci ay xonkam kon ñeent yooyu rek moo am ci farata sangu farata mooy yéene fexe ba yaram bépp tooy te mu ànd ak bomb ak toftale ko toftale nag bu ko waxee mooy nit ki mën naa raxas ab loxo toog ba mu neex ko def lu ko neex ba neex ko bu ñëw bëgg a raxasaat leneen la loolu boobaa sangool day yàqu liñ bëgg mooy loo def teg ci la ca war a topp ba jeex mu ne fas lun lii ab bunt la fii sunanihi ci ay sunnaam moom sangu faata ba tey sunnanuhu ay sunnaam to xat def na ko lim arbaxatan muy ñeent aydan ba tey la daa man fa ka nga xam te nii xadd na xat sàkku na xam-xam mu nekkat kat sunnay sangu farata ni farata ya mel noonu la sunna ya mel farata ya waxoon la ne la ñeent la kon sunna yi tamit ñeent la defar lañ defar kon sunna yi tamit ñeent la mu ne xas lu ko mooy fekk raxas li ya day ni ñeer ñaari loxo ya leel ku waxay ni ba ci tikki jare misla wudu ika kem sa jàpp bi xayri may ni ci lu dul nar madd madatun galax ndiko min xabli istinsaari njëkk sarax wa mason usu may ni ak masa ñaari nopp ya bi layaa si xaaxin ci lu dul ŋaañoo ax ni ma jublu si maaxaka mooy bën bën ya bi kasri saadi ci kasra saad ga waxwata moom saq bun ab bën bën la baa di bay aji feeñ fii rex siga ca bopp xeb waa sax fatul uzu nay ni ak laytaayu ñaari nopp ya xaslun ak raxas ma la nga xam te ni zerat feeñ na min ha ca nopp ya ab wama ak la nga xam te ni batana nëbb na xatt man ci lu war yoxtabar def na ko xalam mu ne ko na nga xam ne sunnaay sangu farata ñeent la comme farata yanam nekkee ñeent bi ca njëkk ci sunna yi nag mooy raxas sa loxo ñetti yoon ba ci tikki jara moo ci njëkk ci sunna yi ndaxte ki san ki nga xam ne dafay sangu farata te bi muy sangu farata jàppuwut dafa ñëw rek sangu farata ba pare war na ci moom mu indi mu def sunna yi mooy raxas loxoom ba ci tikki jara yi gallax ndiku sarax ndiku ak masa bën bëni nopp ya biir ga ak biti ga maanaam nopp yi boo koy masa da ngay la nekk ci kaw nopp ba yëpp ba mu daj nga xool sa loxo masaa la nekk ci biir nopp ba yëpp ba mu daj kon loolu moo tax mu ne ma zahara minha ma watan la nekk ci biteem ak la nekk ci biiram kon ñeent yooyu kon mooy sunnaay sangu farata xas say loxo ñetti yoon galaxndiku salaxndiku masa bën bën nopp ya biir ga ak biti ga kon yooyu mooy ñeent yi nga xam ne ni mooy sunnaay sangu farata kon lii ñu lañ leen andiloon tey muy seen mbind faratay sangu farata ñeent la ay sunnaan tamit ñeent la loolu yaakaar naa lu yomb la ci aw déggin ci ak jàpp kon dañuy wàcce suñuy kàddu fii sagam bunt boobu foofu la yam ñun jotaay bi di ñëw ñu indi lan mooy ngëneelu jàpp mooy ngëneelu sangu farata incha allah bi yàlla nañ ko yàlla defal ñu fekke ko kon ñu ngi leen di siyaare leen jox seen wàccuwaay di wax ne lépp lu fi jub ci yàlla la lu dëng ci jëm yu xeeb la in uridu illa al islaaha mastataat wa ma tawfiqiya billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wasalaamu aleykum wa wa barakatuh Aziz